doon ci procès ñu ne dañ ko condamné ci contumax contumax moo naam condamné nañ la te ñëwoo teewoo jour bi ñu ko jàppee bañ ne dafa sàcc euh, dafa sàcc téléphone ñu jàpp ko jour boobu la contumax bi daanu te loolu que ce soit Sabassi Faye à Ziguinchor ak Ousmane Racine Thior fii ci euh, tribunal euh, d'instance hors classe bu Dakar ñoom loolu lañ wax wax it ne que notifié notification bi bi ko waroon def jaarul fumu mu war a jaar baaxul ne nit nañu Ah, euh, euh, radiation bi nañ ko annulé duggalaat Ousmane Sonko ci ci ci ci fichier bi bi ñu bi ñu condamné Ousmane Sonko muy DGE bi bi ñu demee ne leen euh, Ousmane Sonko nekkul si si fichier bi dañ ñu ne dañu condamné Ousmane Sonko moo tax ñu dindi ko donc immédiatement te boobu Ousmane Sonko amoon na recours yu mu def. Mm. immédiatement dañ ko dindi si fichier bi waaye bi juge Sabassy ni defee joxe ordre loo xam ne c'est exécutoire immédiatement code électoral. article 47 moo ko wax immédiatement exécutoire ñu ñu ñu lànk ne defuñu ko parce que nee nañ état bi dafa am intention wu intention a benn administration buy ay intention état état bi dafa am intention wu def pourvoi ñu def pourvoi conseil constitutionnel Euh, astafurlah cour suprême deful li mu waroon def maanaam dafa waroon vider dossier bi yóbbu ko renvoyer tribunal bu renvoyer tribunal bu Dakar ñoo leen di àtte ñu demaat tribunal bu Dakar ñun ñu ngi topp droit toujours mhm. loolu il faut que sénégalais xam ko Pastef a ngi topp droit Pastef rek mooy topp droit si cas bi ak les patriotes ak président Ousmane Sonko ñu topp droit ba dem ci tribunal d'instance bu Dakar juge bi joxaat ñu raison mu ne ñun kon su suñu xëyee suñu mandataire mandataire u président ou candidat Ousmane Sonko day dem jëli ay fiche de parrainage mu dem gis ngeen li fa xew ñu barricadé ak ay policiers que ce soit DGE DAF ak CDC. li ñu mun a jàngal différence bi entre jugement bi si fay def ak bi nga xam ne moom la Ousmane Racine def euh, tribunal de grande instance hors classe de Dakar. ba changement war a mën a am ab ginnaaw refus bu ñu defoon ñoom waa DGE duñ leen joxe fiche de parrainage bii ñu jox leen. est-ce que mënuñu appuyer wu ñoom ci communiqué bi nga xam ne sax gis nañ le même jour ñu ko doon partagé ak yooyu noonu communiqué bi ñu njëkkoon a servir Ayib Daffé euh, ginnaaw bu euh, Sabasy Faye génnee décision am ñu bañ ne duñ ko jox fiche. non administration soo nekkee ci administration nekk commis de l'État sooy sooy soo siy la loi. tu ne te bases pas sur des communiqués conférences de presse li ngay basé wu mooy sur la loi. justice su jëlee décision boo xam ne c'est exécutoire immédiatement da nga ko war a appliquer li ñu mën a jàngat si situation bi. man pour man dafa leer. mooy que président Macky ak gouvernement au début dañu doon utiliser justice pour faagaagal président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko. malgré li ñu koy waxal yëpp te daf ñu yàgg wax ne que la majorité des magistrats moom li mu gëm mooy ay nit yu jub lañ même si am na ñoo xam ne président Macky Sall dañ pour éliminer adversaire politique ñu topp leen ci droit lu ñu def ñu ñu def appel topp droit ba sës ba droit jox raison président Macky Sall gis ne que ci biir justice bi résistance bi président Ousmane Sonko doon woote mi ngi commencé am am na ay juges yoo xam ne dëgg wax léegi léegi muy utiliser administration ay ay nit yoo xam ne dañuy waat de respecter la loi nga xam ne bi ñuy jàng bi ñuy am seen diplôme bi ñuy dugg ay ENA président Macky Sall xamu leen woon boobu président Macky Sall moom it mi ngi jàng ñooñu décidé ne que ils vont servir le président Macky Sall ay bëgg-bëgg mais du ñu servir justice c'est-à-dire que ils violent la loi te dama il faut les citer muy CDC ki fa nekk c'est un militant de l'APR muy Cheikh Issa Sall ñaari commissaire yi nekk respectivement DAF. ak DG muy commissaire Fiacre Badiane ak commissaire Thiendella Fall ils sont en train de violer la loi je ne sais pas pour quelle raison mais ñoom li ñuy def nii c'est puni par la loi code pénal daf ko punir maanaam communion de fonctionnaires boo xam ne dañuy dañuy refuser di exécuter loi di di def une entrave à la loi loolu dañ ko xam tôt ou tard ils vont rendre compte donc lii yëpp loolu la utiliser nañ justice ba justice bi am ñu commencé génn di jël ay décisions yu baax yoo xam ne droit la ñuy respecté ñu xam ne amatuñu solution ci justice ñu yóbbu ko di utiliser benn administration boo xam ne soit ay militants politiciens lañ fa teg soit ay fonctionnaires yoo xam ne ils ne respectent pas leur serment <coughs> loolu mooy dëgg. Georges Nesta ci côté boobu administration bu Sénégal ñu bañ finalement euh, tijji ñu ci bari sax seen i buntu en pour Ayib Daffé ak euh, maître Ciré Clédor Ly ak avocat bi nga xam ne moom lañ àndaloon euh, administration bi lan nga jàpp ne moom lañ waroon a def ginnaaw deuxième décision de justice boo xam ne génn na. waaw dama yaakaar ne fu mu nekk nii nekkatul euh, ce n'est plus affaire entre Ousmane Sonko ak euh, état du Sénégal mais c'est plutôt affaire boo xam ne c'est l'état du Sénégal contre l'état du Sénégal parce que état du Sénégal mooy lan mooy ñëpp démembrement yi nga xam ne euh, si yoon si loi au Sénégal la ñuy wéyee et je crois que la justice sénégalaise si la bokk la justice est une institution alors. ñoom dañuy faral di wax ne il faut respecter la justice faut respecter les décisions de justice faut respecter aussi les institutions mais je crois que là également le pouvoir moo war a njëkk a donner le bon exemple en respectant également les décisions de justice et en respectant aussi ce qui a été ce que l'État veut c'est quoi c'est un juge à Ziguinchor à dit quelque chose teg loolu xam ne c'était c'était flagrant même ñoo xam ne du ñu ay juge sax bu ñu jàppoon dossier boobu war nañ ko mën a firnde parce que ku ne xam ne ne une radiation des listes électorales dañ ko war a notifier la personne comme on dit l'administration elle n'est pas verbale elle est écrite donc boo koy radier boo koy radier nga xam ne da koy xañ ses droits civiques tu tu dois la lui comme ça nga waxaale ko lii moo tax ma génne la si bi comme ça moom s'il bu euh, se pouvoir se pouvoir en truc mu war a appuyer ne que woy da ma radier d'accord ma si parce que euh, raison yi nga évoqué lii ak lii la mm-hmm. mais tant que recevoir notification boobu mënu ko mënu ko mënu ko contester c'est pourquoi on dit que nit ki da nga ko ko war a jox mu téye liir ko xam li si nekk mu mën a jël ses matukaayam dem contester ko mm. ce qui n'a pas été fait et certainement ça le juge de Ziguinchor euh, Sabassi Faye xam na ko moo tax il n'a même pas il n'a même pas mis du temps pour dire que non non il faut le remettre les listes mm. maintenant bu kooku jëlee décision ñu ne l'état du Sénégal comment il s'appelle par le biais de l'agence judiciaire de l'état kooku aussi je ne sais pas qu'est-ce qu'est-ce quest qu'il est venu faire dans le dossier parce que l'agence judiciaire de l'état je te rappelle que l'agence judiciaire de si ministère des finance la boobu doo gis fenn sur le processus électoral fu ñuy citer l'agent judiciaire de l'État et ici on est en face d'un procès d'un contentieux électoral donc kooku bu ñëwee ba ñu yóbbu ko cour suprême euh, kii euh, na wooy cour suprême cour suprême boobu ñëw yóbbuwaat dossier bi au niveau de du tribunal hors classe Dakar kooku wax la même chose moi je vois même plus euh, fan la affaire bi nekk. lu tax kon ñoo tijji seen i buntu. pour pour waaw léegi lu tax muy tijji seen buntu. Mhm. ça il faut peut-être leur demander certainement ils se disent que euh, comment il s'appelle encore la DAF. day wax ne peut-être que man j'attends que parce que DAF bi ñoom ñaar ñoom dañu am importance. Mhm. la DAF et le le le le kii comment ça e. directeur général des élections mhm. le directeur général des élections mooy joxe tout document relatif à à une élection. yëpp boo nar dem document bi nga war a tey foofu nga koy jëlee. laa def moo tey fichier bi. fichier bi xam nga ko bon c'est <laughs> moo moo moo buñ la bindee si fi moo ko moom buñ la dindee aussi c'est ça donc moo tax quand j'entends les avocats dire que la décision elle est exécutoire effectivement elle doit être exécutoire parce que bu fekkoon ne koo xam ne mosul bindu si liste yi ñu xëy mu am de de problèmes avec la justice ñu ne ko yow dootoo mën a bindu bu boobu de mën nañ ne xaar ba. à la prochaine révision des listes électorales boobu loolu mën mën nañ ko comprendre mais comme c'est quelqu'un boo xam ne il était déjà sur les listes électorales kooku boobu bu ñu ko jugé la logique voudrait que donc ni ngeen ko dindee comme ça ngeen vous vous jugez de la même procédure du même de de de euh, de la même procédure pour réintégrer ko pour en venir à ces deux-là je crois que ça c'est des c'est des fonctionnaires yoo xam ne ils doivent être au-dessus de tout soupçon maanaam kenn waru leen ne waaw yéen lii fii ngeen far wala fële te loolu encore je rappelle que lii moo taxoon aussi opposition bi di revendiquer toujours un ministère de un ministre de la justice un ministre de l'intérieur plutôt neutre ki nga xam ne bu dara xewee comme genre yi kenn du ko wax ne il a été manipulé wala ceci ou cela mm-hmm. maintenant quant au directeur de, de de la caisse des dépôts et consignations je rappelle tout simplement que la CDC c'est une banque c'est juste une banque am na ñoo xam ne duñ fa am ne affaire processus électoral du leen projet de CDC boobu boo boo boo liiree le code électoral aussi xam naa bu si turam nekkee benn yoon la mooy au niveau du dépôt de la caution hmm. parce que am na ñoo xam ne dañ fay dem di déposer seen xaalis comme comme tu le fais dans une banque am ñoo xam ne dañ fay yóbbu seen or sax seen boîte or wala jama di ko fa déposer te ils n'ont rien à avec le processus électoral donc moi à mon avis je suis très gêné de voir que ce directeur là puisse être hmm. un militant un parti politique qui est déjà dans le processus et se comporter de la même sorte. Et parce quelle que soit la décision qu'il va prendre les gens vont dire que oui toi tu partisan. et on rappelle que c'est le maire de Mbour aussi euh, par rapport ak lii euh, parce que euh, mardi prochain euh, la ñu war a jeexal dépôt wu candidature yi gis nañ sax ñoo xam ne ñu ngi déposer seeni i candidature bareegul na est-ce que finalement fu nekkul di daw contre la montre. non au contraire ñun temps bi sax daf ñu arrangé. Mhm. parce que ñun droit la bopp xam nga ñun dañu gëm euh, nekk réew dafay dox ci yoon lépp lu ñu yoon may fii ba fin wu processus bi incha allah dinañ ko def et dama koy répété waat pour nit ñi ñuy seetaan déggu lépp lu ñu yoon may dinañ ko def incha allah fii ba fin processus bi ñoom ñoo respecté wul yoon. Mm-hmm. te loolu je pense que léegi ci argumentaire Georges Nesta wax na ko ñoom ñoo ce sont ay ay bànkaasu état yoo xam ne dañ leen sant dara wax na ko CDC da ngay ñoom lu seen yoon si ay. tu es inscrit sur la liste wala nekkoo benn di soi-disant directeur marketing je ne sais pas quoi di wax mais loolu c'est une honte même pour un pour un état sa candidature te loolu yaakaar naa ne avocat am yi. Ah, dinañ ci ñëwaat. si naka yorul fiche de parrainage yorul attestation de dépôt ou caution. mais euh, naka naka la fas laajal ma ban n'importe quel juriste réew mi. Mhm. ñu toll nii tey jeudi 21 décembre 2023 lan moo empêché président Ousmane Sonko nekk candidat ci wàllum droit laa wax waxuma ci wàllum. jaay doole waxuma ci wàllum maa tey amul ñun nag droit la ñuy topp droit moo régir processus électoral bi ay loi moo ko régir loi yooyu yëpp benn empêché wul président Ousmane Sonko nekk candidat li am mooy dafa am ay ay ci li conseil constitutionnel di laajte ci ay documents. am na yoo xam ne joxuñu ko maanaam mooy fiche de parrainage bi parrainage bi par exemple mais il va déposer te gis naa sànq ci benn article bu am solo boo xam ne suñu benn euh, benn grand juriste Seybani moo ko bind mais que am na benn jurisprudence sax au niveau du conseil constitutionnel de 1998 benn partie bu tudd RPJS su ma juumul jurisprudence Insa Sankara la kooku tudd su ma juumul c'est-à-dire que quand su dee administration wala administration yi état yi teg dans le processus électoral da lay empêcher sa liberte de candidature nga am ci ay preuves yu leer conseil constitutionnel day considérer ne que loolu entrave la donc ta candidature day recevable te loolu jurisprudence su conseil constitutionnel la président Ousmane Sonko ak mandataire am nañ ay preuves te yéen journalistes gis nañ ko ne que ñii dañuy ah, dañuy entraver suñu suñu liberté de candidature je pense que image yaa ngi fi je pense que bi muy dem ànd naag huissier te loolu moo si amoon solo ñuy huissier bi di di di di di noter loolu nga xam ne acte yooyu suñ ko yóbboo conseil constitutionnel te ñu respecter seen jurisprudence te ñu respecter Euh, euh, loi président Ousmane Sonko sera candidat incha allah. parce que dalu leen xel trop euh, Bassirou ginnaaw lii fi jot xew yëpp ngeen di ko dénoncé ak yooyu ngeen jël kayit yi dem déposé ju ko sans mu nekk ay kayit yu complet dem jox ko les sept charges yu nekkee conseil constitutionnel ne leen suñu avenir a ngi noonu politique pour 2024. suñu avenir suñu avenir politique fu leer lañ ko teg fu wóor. mooy ci droit si li ñu yoon may loolu dafa leer ñun on est comme le président Macky on pense que toutes les décisions. comme ni nga ko waxee woon ci discours am 3 juillet toutes les décisions de justice seront appliquées te décision justice bi su dee moom exécutif bi nga xam ne dafa war a appliquer décision justice defu ko gëm naa ne man conseil constitutionnel dañ ko def parce que président Ousmane Sonko dara ci droit encore une fois empêché ko mu nekk candidat li ko empêché toll nii di ko ko jéem a tardé di def ay dilatoire ce sont benn administration boo xam ne ils sont sous la coupole du régime de Macky Sall benn militant APR s'appelle Sall ak deux commissaires yoo xam ne ils sont en train de violer leur serment de respecter la loi li ñu waatoon bi ñuy nekk bi ñuy bi ñuy dugg ci administration bi ne ñoom loi rek la ñuy servir serviruñu nit serviruñu Ousmane Sonko serviruñu Macky Sall loolu ñoom génn nañ ci ba set wecc ñi ngi def li pouvoir bi bëgg pour empêcher président Ousmane Sonko. bu njëkk bay taroon ca Ndella Fall recours euh, waa état la doon xaar pour pour joxe.